waay moo kii su bëggee ñu may ko da nga daa mën a xeex dama àndaale sama ngemb su bëggee ñu may billaay kii mën ta xeex kii mën ta xeex moo xoole kii te dàllam bi dama lay xamal leen gis nga dàllam bi kii day sóob du ma ko def na ñoom ñoom day sóob dara moom xaaral ma wala a dama koy dànk seconde mais la kii day sob déet kii day sob ñoonu ndamu may tubaab ba wi ñoon day sob kii du daa li de man kii maa gën a pare man ni naa leen daal lépp damaa mel ni ku bëri combat bi du maag yow baax combat bi du maag yow maa la mun maa la pour doole du maag yow yow waa Fass laaj waa Fass. Eh, Ousseyn kii dafa sama yoon rek moo tax bokk kii bu xamoon kii bu xamoon kii dafa mel ni ay mag teguñu ko. waaw yow waaw yow waaw doo ma bàyyi dem Fass eh, la ñan lay laaj Fass na laaj Moussa xoolal na laaj Moustapha Gueye numéro 2. xoolal da nga may déglu fii kii man dan may fay ma bëre du ma maye dara man aw ma lu may maye. Ousseyn Ousseyn man dan may fay xaalis ma bëre moom lii muy def amul sens man mayewu ma. kii ñu maye ko. yow maa la mu waaw man du ma la may man mayewu man sama doole ji mayu ko kenn damay liggéey. mais nag yaa ngi ko damay bëre ñu fay ma bëre moom. waaye man toll maa ngi sama ngemb sama sàkk yor sama protège di entraîner su matin soir maa la mu fop du ma sama man kamay entraîner daanaka non mais Cheikh nag Cheikh nag. 6675 kilos la musuma la gis nga déggoo ma de. man kamay taxawal déggoo ma man kamay taxawal déggoo man damaa ñëw fii pour di maye. aw ma lu may maye man sama doole dama ciy liggéey ñu fay ma xaalis moom moo toll ci maye. Keba Kanté bu ko laal de bu ko tudd. sama nit la yow yaa du tudd Keba Kanté yow dama koy tudd na bàyyi Keba Kanté yow Keba Kanté ma la ci ëppale foog naa ma la yow dama bàyyi yow maam Keba Kanté Keba Kanté mooy sama Keba eh, Kanté na rek Keba Kanté maa ngi moom dañ daan contact waay waay yow waay dama sara ku ko dàq bëri Sénégal taxaw Keba Kanté wax la ko di jàppante bu bëri di contact booba dara eh, xewul booba dara xewul de di bokk moom di contact fii ci Wiraas. day fëgg man dama ñëw sonn ñu ubbil ma ma dugg. waay kan mooy fëgg. dama ma am ak sonn fu la mu ëppale ko fop mu naa ma la yoon man dama am Saliou man dama def sulli ko sànni. amal kat yëpp ma ko mën a jëngal. barke maam ca jamono demi félection la def sulli ko sarax moom Ndakaaru képp këram dana jóg taxaw. waaw yow waa kii li muy def nii moom. su ma la jàppee nga am na yoo xam ne nag gis nga yow yow da ñuy tooñ yow yow yow yow kii lu ko fi indi. fu muy dugg. waaw bàyyi ma kii génne leen ko ngeen naan maa kii de kii. yow tooñ ma trop Ousseyn. waaw léegi kii kan la. ah. kii. kii 5 tonnes la. moom 5 tonnes kan du jour parce que dafa ma woo. doon romb non déglu ma dafa ma doon woo ma ne ko mën ngaa jàdd xam nga moom sama waaye des fois damay bëgg des fois koy waxtaanee. ma bàyyi ko mu nuyoo waaw di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di wax 5 tonnes benn ndaw la bu jur 1997 ans 6e mois 3e jour hôpital Ndamatou 23h30 su si faire de présenté woo loolu. di bëggee dof yëpp di bëggee àdduna di bëggee képp koo xam yaa ngi bëggee 5 tonnes dof bi ah 100 pour cent. nga nga nga doon woo ma woo la nga jàdd ñëw. waaw xam nga àdduna lépp teraanga ko quoi. Mm-hmm. tey man su ma amee sama option te nit amul option neexul. xam man dama ma bëree ba pare ñu may proposé ay adversaire mm-hmm. man ma taxaw ma ne bu ma mu Cheikh Niang bu la sene damay bàyyi làmb mm-hmm. mais kii nawloo ma ko damaa xool ba xam xam ne tapet la wër ah. mbaa xam nga leen na xam nga ne kii xam nga leen daa daanoo daanu ba tas non non non sa saar yi ñooy yàq làmb ngay jël saar yi nga xam defuñ dara ci làmb di leen favoriser comprendre man maa si def code de moom bloqué man man maa si def code moom man maa si def code de te barke Mouhamed dootuma tuddul turam. waaw boo ko bindee sax da naa mën nga ko bindaat mais man supprimer la laa def dama sant yàlla kii dama xoolal yoof la ma fekk yoof may dox ci mbedd yi appel lu toll ni appel maam limaamu laay bi nit ñi di wuti ñaan mu kar ma ci mbedd dinaa ah sama téléphone ah sama téléphone. seen laa bëgg a eh, seen eh, nag mais bokkuñu. waaw eh, bokkuñu de. kii moom la war a xamal deful tous làmb laa bu doon dox kenn ko kar di photo ak man te damay def si dëj rek ñu may photo man nan bàyyi ci xel ci ay dëj sax laay barke leeru alxuraan mais di photo ak man. tax ñuy photo ak yow de li nga def ci làmb de. Serigne Touba Mbacke dof baa nga ne dof yi génn ci YouTube damay dem si dëj laax barke leer waaw sa ndof gi la billaahi may jaala meer boo la sa ndof gee tax du du eh, barki leeru alxuraan billaahi wallaahi moo trompé ñu fi jaar waaye da nga man du yëkkati weñ du ma naan doom. barke Seye barke Seye laay def su ma la eh. mun. waa léegi naan doom xam nga ko. doom kuy xam kuy sa sa kan mooy Saliou Khoulé kan mooy Saliou Khoulé. dama xam kuy Saliou man loolu sa xam eh, kuy Saliou Khoulé. Eh, eh, barke Serigne Bamba li jëntuma Saliou Khoulé la li ma dama ko aragal. contrôler say parole ci kooku. waay contrôler ma dinaa rey na ko kii ah. contrôler say parole ma waay dinaa rey na pas comme waay yow kii comédien la quoi yow kii ci muy wax da ngaa mën a may sax cent mille muy nekk fi di xaw. kan ay dimbali ma waaye yow ko man moom li yor nii li yor nii bu doon bëre man laa la de barke yàlla ba di wàcce solo ma dugg daanu mais ñi nga bëreel ak ñooñu bokkuñu ay comédien lañ taman mbër laa non ñooñu ay comédien lañ taman barke kii wallahi li si boo ko yóbbul sama ans ay dinaa yow yow sa bopp bi ni mu mel nii rek yow. du ma bëreeg yow ñu foto ñu wala ñu def. booy bi na trop. non pare non kii def kii def kii dama ko. déedéet man kaa kaa kaa waaw mais loolu daa jël ay appel. Eh, appel eh. appelu seen naa waaw mais non. ku la seenu ne gaañ na def. ci appel lan nekk sañse ne la def da nga ko war a nuyu ngeen dem mais taxaw nag gars yi indi ma sama téléphone indi ma ga da man waa kii lu muy def nii yow. dama daw laaj ko. ndax man xaw ma lii nit ñi xam am yoo xam ne boo dikkee dalal xel dinaa la dimbale ñu faj. xam nga ah, am xel yow nag doo nit dof waaw ma kam dama fa amoon gel man du ma kam gel waaw da ngay déglu man dama fa amoon gel te ni da ngay am colère te man benn gel laa amoon. yaa ngi dégg. man benn gel laa amoon. yàlla dogo dofal dafa dee mu ngi suul armée Pikine. dafa génn àdduna rek. rafetal la dafa dee dafa rëy. dafa